Saliou Seck dal leen ak jàmm na woon fa woon terewaat nañu doxu ñaxtu bi waa F24 bëggoon amal ni ki démb ci aljuma ji Sud du Quotidien mortalatin mi préfet bu Ndakaaru moo fa jaar gantal doxu ñaxtu bi waa f ak waa Y'en a a amal ca place de la nation gars li nu bëggoon moo di naqarlu ak jébaane ñi nu jàpp ne politique rek moo leen bàyyi ca kaso ba tribune yéen kaay dolli ci parrainage bi ba noppi ne préfet lànk la def ne leen day bu dellu gannaaw waaye ñoom it duñu masa tàyyi altine bii di ñëw dina delloo buum ca mbooy ga dugalaat beneen demande ngir manifester manifestation yooyee ca la enquête yéen kaay xëy defub enquête ba becci ko ci waxatam journal bi ne li mu seetlu moo di ne ay manifestation bu amee ay doomu aadama dañ cee ñàkk seen bakkan bi ci mujj moo nga amee ca xosantoo ga ca Kédougou tax yéen bi jàpp ne maintien de l'ordre bi fii ci Sénégal war nañ koo xoolaat ca France sax ba nit faatoo woon ci ay manifestation ca lan xoolaate nañuy amalee maintien de Sall ga journal L'Info mi samp laaj bi ne njiitu mi di président Macky dafa war a amal tukkim nemmeeku ca New York ga ca Amérique fukki fan juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ñett ci weeru sàttumbar bi waaye yéenekaay bi nee day xalaat ay nit ñëw fa xajamal ngan nga foofee ca New York Nicaragua la ndaw yi Sénégal yi jël léegi Le Quotidien gën tukku dugg États-Unis d'Amérique moo ko waral tax ndaw yi jamono ji yoonu Nicaragua gi fa la ñuy a weesoo jafe-jafe yooyee doomi Sénégal yi di dund ca diggante Nicaragua ak États-Unis bëri na ci ñoo xam ne ñu nga leen di delloo si convoi bi ci mujj ëpp na téeméer libération yéen kaay ne ëpp na itam téeméeri doomu Sénégal yu jaaroon ci géej gi ñaari gaal lañu jël ngir doon utali Espagne mbëkk mi ñu fekk ca ñetti jigéen ak ñaari tuttànk di lu doy li doy dëgg moo di liy dal waa Pastef ga woon Walf Quotidien muy Fadilou Keita di Bassirou Diomaye Faye ci jamono yi doon xalaate ñu may leen bàyyim neggandiku ci la leen yoon xamalee ni gën nanoo teengal seeni mbir daanaka lépp li ñuy toppe seen jiit di Ousmane Sonko ñoom it gàll ko ci seen kaw kaw bopp gouvernement bu Sénégal Amadou Ba def na ci atum lëmm L'Observateur mi nu xëy di ca def bilan ba dalal ci yi économiste ay syndicaliste ba ci ay agriculteur waaye li ñu xamal waa journal uri 15 ko nis bi moo di ne Amadou Ba at mi mu def ci bopp gouvernement bu Sénégal yorin gi ponum pir la dàq na pon waaye pon dàq na ko moom Amadou Ba ndax Abdoulaye Daouda Diallo da koy jàppale ci élection présidentielle yu atum 2024 wala dafay jël yoonu boppam réew mi quotidien lu ci mën di am daal moom Abdoulaye Daouda Diallo dina wax ni ki tey jii ngir leeral ndaxam day topp yoon njiitu réew mi di président Macky Sall xàll wala day jël tàq ngir gouvernement bu yees bi mu bëgg a taxawal gouvernement boobee moom yuusu nduur du ca bokk ci lii quotidien njiitul fekkee ma ci boole di fa leeral la tax mu tekki ndombal tànk Youssou Ndour ne laalewul dara ak waxi troisième mandat dafa jot rek mu taxaw defub xayma ci li mu jot a def te itam histoire am méngoowul ak di layal ñetteelu mandat Youssou Ndour ne tey ji la gën a taxaw ngir wax ci lu doxal réew mi parti réew mi ki ko jiite jamono ji fan la nekk las quotidien Idrissa Seck di ndaamal Kajoor defati na mani na ma cell joo xam ne kenn xamul lu muy wundu leer te wóor moo di bésub gàmmu gi moom xam nañ ko le soleil national ne jàpp nañ ko àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru satusmbar ñu ciy màggal gane àdduna ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam vox populi ne ñi gane àdduna yees moom ba ci élèves yi jamono ji ngir ñu am kayitu judd dañuy mel ni ñuy daw safaak marwa yéenekaay bi ne li ko waral moo di ne liggéeykat yi collectivité territoriale yi ñoo soobu ci grève bu amul àpp tax nag way juri ndongo yi di fa yëglu di naan sonn nañu ba àgg ci lool ba di fisal seenu naqar naqar wu rëy la wajuri xale ba ñu rey kër mbay faal nekke libération yéenekaay ne élève bu jigéen la la amoon aw faram moo ko rey ndax firange papa moto lay wuyoo moom papa moto mi ko faat jàppe nañ ko ca dagga daawur ga ca saalum

boo xam ne jot nañ koo gis fi ci Sénégal kon bourde bi nag di wax a tàmbale tey incha allah ci diiru uh, fukki fan mbokk jàngin jëf Seydou Nourou say économie sociale ak environnemental dina ak ay kàddu yu mu war a yëkkati gannaaw ñu tànnee kii di Amadou Ba mu war a jiite coalition benn bokk yaakaar ci élection présidentielle 2024 uh, feebar bu ñu tuddee chikungunya di xeetu paydus mi nag rotal na bakkan foofa ca Tambacounda am ñeent fukki ci am ba tey muy nag ab uh, ndaw di sàmmkat moo ci ñàkk bakkanam ndax dafa yéex a dem ca bërëb bu fajukaay mu jaaree fa daal di faatu gàmmu 2023 war a am nag ci guddib ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi ñu nekkoon àllarba bi ñu dëgmal incha allah bii bu ñëwaatee commission nationale buy saytu weer mi nag ne gisuñu ko ci benn gox ci miim réew Bourde wax a tàmbale incha allah tey euh, ci diiru fukki fan ñaareelu pàcc ba tàggat yaram Mamadou Max Ba yéen kaay yi Serigne Saliou Ngom ci euh, Serigne Saliou Seck ci technique bi kaddeex lu asalaamaaleykum. Seydou dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM gàmmu ñu war ko amal ci guddi guddib alarba yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu ne buñ ñu sukkandikoo ci imam yi ak ulema yi fii ci Sénégal commission nationale buy saytu weer wi nag niki démb ña nga woon foofu ca RTS ngir xool lii di weer wi ne daal gis ñu ko ci benn gox ci mim réew imam El Hadj Omar di président euh, imam ak ulema ci Sénégal ci leer lekk Daouda Diouf. mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ginnaaw bu ñu sant yàlla suñu borom di julli ci yonantam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen andil xibaaru weer bi ci bésu tey bii di ajjuma tombeek fukki fan ak juróom ci weeru septembre séentu nañu weer bi séentu nañ ko it amul benn béréb bu ñu am information wala fu ñu wax ne weer bi feeñ na fa séentu nañ ko ci réew mi yépp amuñu ci fenn fu xibaar jóge ne weer bi feeñ na si te juboo nañ ci juboo ci ñu nit ci suñu bo suñu biir juboo ceeg réew mi yépp ci kilifa yépp ñu ne nag comme noonu la te noonu la dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk mooy fan bu jëkk buy nekk ci weeru rabial awal wala reeru gàmm dimanche fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk mooy fan bu jëkk ci weeru rabial awal wala weeru gàmm kon nag gàmm gi dina nekk àllarba tombeeg ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bu ñu nekk gàmmu gi dina tombeeg àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk ñuy ñaanal ñëpp gàmmu jàmm guddi jàmm guddi gu ñu jaamu yàlla bu yàlla suñu borom nangu di guddi yonente bi kon ñu ci gërëm ñëpp di ci sant ñëpp di leen ñaanal jàmm salaam sutura ak barke ak nawet bu mëtale. mu ngoog ñett simi tegoon ci juróom-ñett ci juróom-ñett ci rajo bi ngeen taamu RFM. pour man RFM mooy bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM fukki cas ak ñaar walla ñeent fukki ak doomu aadama ñaar ji am feebar bii di chikungunya di xeetu pay de mort rotal bakkan foofee. ca Tambacounda muy ab ndaw di sàmmkat dafa yéex a dem ca bërëbu fajukaay mu jaaree fa ñàkk bakkanam docteur Bayel Cissé moom directeur régional bu santé ca Tambacounda ci jokkoo beeg Ibrahima Jabaxate. boobu léegi tey mun nañu ne am nañu 42 cas de chikungunya si 42 yi kenn ki noonu jot na si faatu te lu tax mu lu indi loolu mooy dafa yéex a ñëw dafa ñëw si waxtu bi rek la dem donc te loolu mu nekkoon benn sàmmkat bu ndaw boo xam ne bu demoon te ñoo ñu xam nga ne duñu sol ay yëre yoo xam ne yu jot te loolu nekk na loo xam ne loo tam yoo bi loolu la gën a bëgg nit ki boo solul ay bu bu lay màtt nekkul guddi fu ngay liggéey si bërëb liggéeyukaay la la fekk te si àll bi la nekk donc ñii di dem si àll bi ñoo ngi leen ñaan nañu gën a fagaru di sol ay yére yoo xam ne yu jot yoo xam ne mu boo xam ne day muur seen tànk yi muur seen loxo yi loolu buñ ko defee incha allah mun na am peut-être yàlla musal leen si yoo bi te yëre yooyu tamit nekk yor yëre yoo xam ne mun ñu nekk yëre yu xañaar yëre yoo xam ne day boo xam ne dangay ngay seen yoo bi boo ko seeni nga mun ko dàq loolu lu am solo la mu ngoo ko ñaari policier yu doomu Gàmbi lañu faat talaata bi ñu dégmal police bu réewum Gàmbi nag ci ab waxtaan bi mu sekk na waxtaan ko xibaar yi ni ki demb ci ajuma ca Banjul ne nag ki ñu jàpp ne moom moo daal di faat teg nañ dafa daal nangu ne bokk na ci ab groupe di ay FIP foofe ca Casamance conseiller à la sécurité nationale nag foofe di Aboubacar Souleymane Dieng yëkkati na ay kàddu ne yeneen juróom benn daal yi nga xam ne euh, seen xel teen ci ñoom dañ leen sax mujj teg loxo lee xale Amadou Sabar Ba. ginnaaw bi mu jàkkaarloog enquêteur yu Gambie yi présumé meurtrier bi faat ñaari policier yu Gambie nee na mi ngi bokk ci groupe rebelle ca Casamance te jii ci àjjuma ci ngoon conseil sécurité nationale bu Gambie jàkkaarloog taskatu xibaar yi foofee la xam ne ne ki ñu njort na ne moo def bi leen ñaaw teef nee na mi ngi jële arme à feu bi fële ca Casamance te wax na ne mosul bokk ci benn institution de sécurité ngànnaay li ak balfitali yi nga xam ne ne ñoo rey ñaari policiers yu doomu Gambie yooyu bokkul benn yoon ci stock bu police bu Gambie Aboubacar Souleymane Dieng wax na ne jàpp nañ yeneen juróom benn ñoo xam ne ne ñoo njort na ne bokk nañ ci ñaawteef yi yi nga xam ne ne ñoo faat ñaari officier paramilitaire yu Gambie yi moom conseiller à la sécurité nationale bu Gambie di ci dolli ne xibaar yi nga xam ne ne enquêteurs yi am nañ ko fi mu toll nii mooy ñi nga xam ne ne ñoom lañ mujjee jàpp kenn ci ñoom bokkul ci benn institution de sécurité ci benn communiqué bureau bu inspecteur général bu police bu Gambie di joxe ay xibaar bu tukkee ci ñaari policiers yooyu ñu faat di wax ne ne dinañ leen denc ci weekend bi lee Paté moom denc nañ ko tey ji ci ajuma ji ci village natalam Foni Kampasa ki nga xam ne nag mooy naataango mbii di Gomes te ñàkk bakkanam moom it ci samedi ji lañ koy denc fële nataalam di Kiti Nancy Diallo xam ne ne moom mucc na ci boobi lay jëyee jamono ji nag ña koy faj ci hôpital naam sax dañoo wax ne ne état am dafa critique waaye fi mu toll nii xel dal na ci. maire tàggat yaram mi nga xam ni da doon joxe drapeau national sélection nationale de football ji ñi tëxlu war dem ci coupe du monde ba jàpp ca Malaisie 23 septembre jàpp 7 octobre 2023 Sénégal champion d'Afrique en titre bokk ci poule D bi ànd ceeg France Australie Koweït Amadou charge des sports ñu teewlu ko. c'est au tour tey jii sélection nationale bu football ñi nga xam ne duñu dégg ñoom la ñu daal di jox drapeau bi nga xam ne dañu wara a dem coupe du monde du 18 septembre ba 18 octobre fële ci Malaisie euh, ay jàmbaar lañu bu ñu xoolee résultat yi nga xam ni am nañ ko ci continent bi waaye tamit ci àddina bi ndax ci atum 2021 da ngeen daal di gagné coupe d'Afrique des nation loolu nekk victoire bi nga xam ne ubbil na leen yoon te am jeexital ci sportu senegal ci rawatina ci Afrique. waaye tamit li ci am solo mooy coupe d'Afrique ak coupe des nations bu football bi nga xam ni gagné ngeen ko ci atum ci Yaoundé fële ci Cameroun donc confiance am nañ ko xam naa ni drapeau bi dina doon mbir mi nga xam ni di ngeen ko taxaw bu baax a baax jiitu réew mi Macky Sall ay résultats exceptionnels yi nga xam ni bëgg na ko jàpp na ni euh, war ngeen mën a am soutien ci moom euh, maanaam dina leen taxawu muy ñaax peuple bi tamit daal leen taxawu ak ñëpp nga xam ni ñoom diaspora bi et de tous nos compatriotes de la diaspora. beneen coupe du monde bi yoon ñi amagul fukk ak juróom ñaari at gaynde yu Sénégal nekk ci groupe D bi bokk kook Japon Pologne ak Argentine di football yu wuute ndaxte day laal Asie Amérique ak Europe waral ba coach bi Serigne Saliou Dia ne dina metti waaye gëm na ni dina ci génn Serigne Saliou Dia ñu teewlu ko. mais boo xoolee poule bu poule poule bu difficile du poule bu yomb. Euh, defe naa boo demee phase finale coupe du monde poule yëpp dañuy xaw a métti parce que équipe yi gën a aussi dinañ rencontrer trois football yu bokkul ci trois continents différents donc mën a trois fois donc moo tax dina jafe beneen mooy boo ñu ko conseillé muy Argentine bi nga xam ni équipe boo xam ni la participé am na agressivité am nañ maîtrise un peu nga xool Japon aussi muy beneen façon football ñoom participé nañ mooy seen troisième fois équipe bu am vitesse la bu am vivacité équipe bu xaw a discipliné plan tactique lay nekk nga jël structurer aussi basé sur la maîtrise et la projection vers l'avant donc mooy wane que ni pôle boo xam ne vraiment euh, dëgg na daal mais comme ni mu ñun aussi am nañ des qualités on n'est champion d'Afrique pour rien donc am nañ loo xam ne mën nañ dem euh, faire prévaloir ko muy lan muy un suñu motivation muy un suñu état suñu pressing constant dans sur le porteur du ballon et defe naa loolu boo ko xoolee moo tax poule boo xam ne je il faut ñu préparer bu baax pour mën a un peu dem rivaliser ak e-, ces équipes pour mën a jouer calmement nos chances. coupe boobu war a am ca Indonésie 10 novembre jàpp 2 décembre édition bi weesu di atum 2019 amoon foofee ca Brésil élimination CAN féminine de football Maroc 2024 gaynde yu Sénégal léegi xam nañ kan la ñuy taseel ci programme bi Mozambique lay doon ci double confrontation 22 ak 25 septembre stade Lat Dior bu Thiès la ñaari match yëpp di amee buñ génnee ci loolu nag gone yu maam Moussa Cissé yi dinañ tase ak euh, ki gagné diggante Soudan du Sud ak Égypte xabaar bu tiis bi ñu ngi leen ko doon xabaar euh, barki démb du Doudou Diaw euh, génn àdduna kon euh, foofee di Diaw génn àdduna ñu denc ko foofee ca Kaolack moom nag ay xaritam ak euh, njaboot ñoom ñëpp ñëwoon nañ di seede jour bu mag bi mu doonoon joué ci Saint-Louisien ak Sporting Club bu Kaolack moom nag mu nekkoon itam nit ku baax ñu teewlu seede yi ci micro Fatou ku baax la muy nit ku yaat la woon nit la koo xam ne man dama mujjoon jaaxle ci moom mën na ma jur mais dafa man def comme moroomam ki ñu ñàkk tey muy Doudou Diaw xëy na déyoo ne ko daal karo googu ni nga ko bëgge fa la sa suuf nekk. mais yàgg na fi nag. lool bi mu ñëw xarale woon ñor comme muy football sporting de Kaolack di liggéey poste ci téléphone si bi mu retraité itam fekk na mu bëri ay mbokk lool ci Kaolack surtout moom élevage affaire ay fas ak xar da ko bëggoon mbootaay gi nekk fii les éleveurs de Kaolack yéeg moom li gën a baax ci nit lay soppi ci yow mooy jikko du jaw dafa doon sportif mu doon fudd yéeg daal di koy nuru booy ànd ak moom li gën a baax ci nit lay soppi ci yow mooy jikko du jaw dafa doon sportif mu doon footballeur bu jekkoon rafet mën a football. vraiment man bu may wax ci moom ci si confus quoi. Kaolack aussi en tant que doomu Ndar moo mujj nekk dernière euh, dëkkukaayam. sunu mag ju baax la. vraiment man ak Ablaye teg nañu si siraatul mustaqim. que ne football na euh, à la Sénégal football na à l' équipe nationale du Sénégal contre Hongrie. du jaw nag yal na yàlla atti si yërmande yàlla bu ko yàlla top si dara. ñu wax ci football bi yoon ca biti réew ak yenn résultat yi démb Ligue 1 cinquième journée PSG Nice moo ko fekk dëkkam dóor ko ñetti bal ci ñaar Bundesliga ñeenteelu journée Bayern Munich moom dafa timboog Bayern Leverkusen ku nekk dugal sa moroom ñaari bal suba Ligue 1 Stade Rennais mooy dalal Lille bu 15h jotee Lens Metz bu 19h jotee ci Premier League Manchester United mooy daral Brighton bu 14h jotee lay doon Tottenham Hotspur bu Pape Matar Sarr di dalal Sheffield 14. 14h West Ham itam di dalal Manchester City bu 14h jotee lay doon choc bi seri A lay am. quatrième journée Inter mooy taseek Milan match bi bu 16h jotee lay doon ñu wax ci beneen discipline ak boxe tournoi de qualification olympique Sénégal nag euh, jeexal ko ak ñaari médaille benn sénégalais bi demoon final di Jarga Balde dañ ko dóor algérien bi di Mourad Kadi moo ko dóor Sénégal nag euh, am ñaari médaille médaille d'argent ak euh, médaille de bronze ñu teewlu ci Malick Niang mooy directeur technique national adjoint bu fédération sénégalaise de boxe disciplines associées. di wax ne vraiment Sénégal dugg na ci ci alhamdulilah rabbil alamin ndax eh, li am ni ci bopp la première fois ñu am médaille d'argent qualification olympique ak médaille de bronze une première dans l'histoire de la boxe vraiment ñu koy sant acteurs yëpp eh, di remercier athlètes yëpp ci engagement bi di remercier aussi staff technique bi di wax ni aussi on a pris benn ci réglage ba léegi incha allah rabbi eh, am nañu échange nag suñu kanam ni. Sénégal dinañ ñëpp dinañ ko dégg incha allah ci box ñu ngi ci liggéey bi di yaakaar ni yàlla baax na incha allah le travail continue et nous donnons rendez-vous au allah voilà suñu ñaari boxeurs yi catégorie super am argent parce que suñu kilogramme daam moo am bronze waaw mu nekk vraiment luy ci boxe on s'en réjouit ba pare on va continuer travail. Malick directeur technique national adjoint bu fédération sénégalaise de boxe et discipline associée doon dellu ci kon tournoi de